asalaamualeykum. kii mooy caatu baayam di porte parole kër gi Serigne Pape Malick Sy sa njaboot gaa ngi nii. kii mooy caatu baayam. waaw di porte parole kër oh, gi Serigne Pape Malick Sy maam sa njaboot gaa ngi nii. Serigne Pape Malick déglul ma wax la baayam. fils cadet de Serigne Babakarsi premier khalife de Maodo Serigne Pape Malick a grandi sous l'ombre de son père Cheikh Khalifa qui nourrissait pour l'enfant attachant qu'il était une affection et un paternalisme sans faille euh, la radiallahu taala anhu ak soxna astukan radiallahu taala anha Serigne Babacar Sy bu Seydil Hadji Malick kenn du ko présenté soxna astu bu góor gi Abdou Hamid Kane muqaddamu Seydil Hadji Malick boobu nekkoon Kaolack mooy way juram bu góor góor googu nga xamni mom le mak ñi yabalone ba nu la grande mosquée de Paris mom mo dem reud grande mosquée de Paris donc da fay bax nit ñi diko xamé xàmmee ci walu histoire kon ñooñu ñoo meññ sëñ pam malik mu gane aduna le 16 mars 1941 ci Tivaouane sëñ Babacar Sy radiallahu taala anhu waxoon ni duppee naa ko ki ma gën a fonk ci kaw suuf muy Seydil Hadji Malick donc maamam mooy turandoom tabarakallahu te bi mu génnee àdduna maa ngi naan ah moom day eh, tur wuyu na borom ndax mook maamam bi def ñetti fanam diko ñaanal mo tombé ak anniversaire mamo maamam Seydina Hadji Malick moom le 25 le génn aduna Seydina haji mali génn aduna le 27 euh di dom ci Serigne Babacar si ñin ko waxe ak soxna Astukan don rak ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane sial Maktoum ak Serigne Abdoul sial Amin ak seeni jigen ñom soxna mo soxna zainab ak soxna Aminta yalla dogal mo don ciat ci serigne Babacar si serigne Babacar si am fum ko tegon ndax fonkel gumu fonkon mawdo turundo moy serigne sëriñ Pape dafa dajale won senegal senegal dafa ñu ba ci Pape Malick rek daje fa maanaam dañoo rek gor foofu ndax bo xolé euh, serigne Pape surtout seydil Hadj malik. la di doomu Seydi Aboubacar si ñu tudde ko mamam mais boo toppee liiñeem sëtu yonent bi la direct ndax kep ku alhaj malik meññe kep ku sidin meññe nga joge bundu nek suyuma wala njum wala podor wala jatar, suyuma ñom ñoo ñot tiyowoon jaar sin du graw te jolof ci keur maam dem ba bunna kep ku fa sante si wala nga bankaso ku sante si yonent bi sa maam la ñu xam lolu ba pare alhaj malik bu ñewé yaayam maam fa wele fatumatul lansar moo jur Bote Faye mu jur Fawade Wele mu jur Alaaji Malick boo ko toppee yonent bi kon foofu la meññee mais yàlla may ko itam mu am deretu buur deretu gor ndax Xalifa Roxee Njaay maam Roxee Njaay la ñu may maam Alaaji Malick rue Tolbiac à la rue Saint-Louis à saint mu denk ko fa am fa maam Fatsi ndax Alaaji Malick dafa am ñaari Fatsi Fatou Sy bu Roxee Ndiaye ak Fatou Sy bu Sofiou Niang te dinaa la wax ni la Pape Malick si bokkul ak Maodo Sy bu Alaaji Abdou Alaaji donte ñoo ko bokk fañ bokkee du foofu ndax ma Roxee Ndiaye surtout buur ba Jolof la ndax Ali Boy ay mer yu ma jéey biram yu ma jéey biram yu ma jéey gànkeel biram xuja tam donc dangay dugg Jolof boo ñëwee ci gànkeel biram xuja tam ñoñu ñoy mamu roxee ndjay mais da ngay ñew fofu wati ci soxna ndjay soxna ndjay aram bonko aram bonko mo jur sofee du ñang ñu may ko malik mu am ci fatsi mom moy yaayu mam bashiru ñang te afé am ci alaaj mansour di way juru khalif general bi serigne bay si mansour tek ci alaaj abdou aziz ak alaaj abib ci ñu gor ñi mais am na nafeeg euh, umu xayri ma ca baxeya ñooñu ñëpp maam sofiitu mooy seen yaay kon alaaji euh, Maodo si ak Pape Malick dañoo bokk diggante Roxee Njaay ak sofiitu ñang ñu bokkaat aussi ak Maodo Touré bu Fass Touré ndax maam Masamba Jéeri donte bawol bawol la dafa am de askanu jolof moom moo am doom bu ñuy wax Yaasin Jang ñu dënk ko alaaj malik mu am ci ayda yasin ayda yasin ñu may ko mom hadi touré mu am ci maodo touré moustapha touré ak mam pap abdou aziz touré mi di mudir nga paré pap malik dugg bir salum ndax maba joxu muy mamam mariam ba astukat mariam ba selbe selbe mariam ba mariam ba astukat ndax Selbé lañ may Maba Diop lañ may Mamour Ndari mu am ci Marème Ba mu jur asukan ñu jox ko alaaj euh, euh, Sëriñ Babacar mu caat loo Pa Malick mais Selbé Diouf Buur Sine Coumba Ndoffène fa la jóge mu nekkaat sëtu Buur Sine moom Pa Malick nekk sëtu Maba joxu nekk sëtu buur ba te boo duggee Buur siin da ngay dem kër saa xewar Fatma saaxewar mbirum saaxewar saaxewar fan la te ñooñu ñoo meññ dameel yi fi nekk yii yëpp la joro ñoo ci pam mali day bokkaat foofu loolu tax il vel le sang royal kon tey Pape Malick booy xool dafa résumé Sénégal ci wàllu juddu ndax sëñ Babacar dafa soppone pam mali façon boo xam ni na sax way jur diko ko domam eh ki mu ko tudde nag yaakaar naa moo yokk loolu muy Seydi Hadji Malick sunu turandoo bu masaan di dem jumaa sax faw mu gis ko door a dem lu Pape Malick bëgg rek mu wutal ko ko sëñ Babacar masul nangu dégg sëñ Pape Malick ba muy ndaw muy jooy def ne na noppi walla man ma génn kër gi ba mu noppi ndax mënuma supporter jooyi surtout Seydi Hadji Malick ci kër nañ ko nax ba mu noppi walla man ma génn kër gi dem feneen ba ba ba ba maram seex ba mu noppi pour pour la ni rek ni meloon ci moom eh, doy na waar bëggoon na ko lool waaw. Pape Malick moom dundam. Hmm. caat la waaye Tiwaawan la ko defee. dund moom dund gu féex la woon ci Tiwaawan wax dëgg yàlla léeg nag daan naa fa dem di ko gis waaye yëfu boppam lay def waaw waaw dafay def ànd ak ay yëfam di toppatoo ay affaire boppam rek waaye nag boolewu ci woon benn njublang lu muy def daf koy def ci boppam di ko def pour nit ñi day jàngi kenn du ko duma nag ndax du def dalal luñ koy duma <laughs> wallahi loolu laa ko xamal daal xamaluma ko benn njublang wallahi dëgg-dëgg te xale la booba nag noon na def luñ koy waxal waaye dara bu ñëwee daal dina ko toogal rek mu toog am benn xale bu yaayam yor Fatou ko daan fa bu mu ni Fatou fa nañ dem bu ñu nee Fatou mu ni Fatou bu dem <laughs> moom daal neex ndeysaan neex ñëpp bëgg ko ndax ni mu waxee ni mu defee dafa neex ñëpp waaye boobu tuuti la boobu dalagul sax alxuraan après nag ma bàyyi ko foofu man demutuma Tiwaawan maa ngi fii toog yàgg na lool sax ab daal bi mu doonee mag laa ko xamaat muy ñëw muy ñëw Tiwaawan di ko fa fekk waaye mësuma ko fekk mu def benn njublañ lu dul duñ ko nii rek mu ni waaw Sëriñ Babacar daf ko soppoon ndax limu ko tudde Seydil Xaaji Maalik radiyallahu anhu daf daan wax ni ah mom day dundam bu ci amé dom bu mu tudde Seydil Xaaji Maalik rek gannaaw gi lu xew baxna yàlla jox ko ko nak mu bëgg ko lol nak kenn du ko tudd kenn du ko taas lu mu bëgg suba ba ngoon mu ni nañu ko wuti jox ko ko mu ni dafa bëgg kéwél góor gi ni wuti leen fu mën a am kéwel ñii dugg àll yi ñii aw yoonu jolof jolof lañu amee kéwél indi ko ba dafa gimme rekk sëñ Babacar fal ko yàlla xam na ko ku ko sopp rekk mu sopp la sëñ Babacar Seck Pape Malick mii da ngay réew ba bëgg a tos ka rek wallaay waaw moom kenn du laal kenn du wax waaw waaw xam nga nag ñoom seen relation ñoom ñaar euh, dafa nekkoon mën naa wax que ni seen relation ñaari étape la ci li ma ci takk étape bu njëkk bi mooy bi sëñ Pape gënee nekk ndaw dafa attaché woon papam te mag ñi nettali nañ ñu moom tamit mu confirmer ñu ko Serigne Babacar daf ko daan jël uuf ko guddig lëmb nekk ci kurusam ngir affection bi mu amoon ci moom di dem ba daf ko daan fanaanoo moom sëñ Pape tëdd na ci ginnaaw sëñ Babacar juróom-ñaari at yoo xam ne ci ginnaaw sëñ Babacar si lay lay fanaan donc loolu defoon ci ñoom ñaar benn mën naa ko tuddee complicité euh, sëñ Babacar lu ko lu ko kenn ñemewul woon a ñaan sëñ Pape rek ko mënoon a ñaan mu defal ko def ci daan dem ba mag ñi suñu demaan ba soxla sëñ Babacar mu soxla boppam moom tëj te mënuñu jot ci moom sëñ Pape la ñuy ñëw wax ko ni ko pour mu fëggal leen góor gi te nee na suñ su masaana ñëw ni koŋ koŋ koŋ ni ko papa ubbilal sa papa lu sëñ Babacar doon def da koy bàyyi jóg ubbi bunt bi donc loolu vraiment nekkoon seen diggante comme ni ma waxee sànq rogalaat

ndax su ñëwee dégg benn histoire nee na am ci benn histoire bu reelu buñ ko daan nettali ci eh, eh, eh, mbër ma doon bëree ban ko pesee mu jaxasee am na daal lu mu fa njëkk si sëñ Pape daan nettali nee na sëñ Babacar day ree ba su bëggaan ne daf koy woon ko waa Papa As nga ni mbir ma nu mu defati rek mu nettali ko histoire boobu mais nee na dafa dem ba si yàgg rek mu mel ni dafa am lu ko ragal loo sëñ Babacar te xamul lan la nee na ba bis sëñ Babacar si woolu Serigne Cheikh. ak soxna góor gi ni lii daal jaaxal na ma moo tax dafa daan toog bu mujj mu tris si ni Pape Malick ni mu yëngoo woon ak man gimmi rek ragal ma loolu jaaduwul ndax ki ma gën a bëgg ci àdduna laa ko tudde kon nag boobu bu ma ko def mukk mukk mukk neen soxna su ci boppam moo ne ko gis nga di nga am baay boo xam ne di nga dem ba benn moment dinga xam que ni kii du baay kese kese te kenn du la ko wax nag yaa koy xamal sa bopp donc moom ben moment demoon na ba découvrir dimension spirituelle dimension mystique bu Babacar ba moo tax nag mu commencé woon def réserve digganteem ak moom xam ni kii le papa qu'est-ce qu'est-ce? na Amne mu donc rek euh, loo mën a sax ak moom il faut nga tey ci

inquiété ndax dama xamoon seen relation ak fii la góor gi tegoon mu ne ko waaye bi ma xalaatee ni Serigne Cheikh nga fa rek ci la sama xel dal ma xam ne dina mën a gérer situation bi ba euh, débordement du am. Serigne nag moo ko doon jàngal alxuraan waaye mu daan ko def li Serigne daara di def ndongoom di ko caw te te te moom faaw mu faaw mu dóor ko ndax ku ñuy jàngal moom faaw ñu caw la. batana non la demee woon boole ko sëñ Cheikh nak sëñ Cheikh yar ko moom itam. nima ma ni ko ma diko jangal alquran lele léeg-léeg ma domp ko domp bu saf bu ko gor gi de. nek ko xamanteni ni nekk dara pur ndax kenn moko moulé moko formé moko tabax à son image nak ñu Serigne Cheikh Tidiane te kooku boo ko tuddee xam ni c'est l'intellectuel organique de la daara de Serigne Babacar Sy et de la daara de Seydil Hadj Malick ndax ñi mu bokkal ñëpp ko fonk fonkoon sa sopp ko mu joxoon leen cër bu mu joxul kenn ci àddina muy alaaji Mansour ak alaaji Abdou ay bàyyeem lañ dañu bëggoon Serigne Cheikh ba gëmewuñ ko moom itam mu fonk leen ba gëmewul leen man damaa fekkee nettalewuñ ma de damaa mu ni alaaji abdu mbaax bu yàlla am jox na la ko alaaji abdu ni ko yow yaa war a wax ak waa Sénégal ñu lay dégg di la déglu keneen warul wax boo fi nekkee cofe la ëpp na loolu wala wala wala mënul weesu loolu ba pare sëriñ Babacar jël ko jox ko alaaji abdu mu mu mu jàngal ko yar ko wax na ko sax sëriñ Cheikh budul won ak mom lu bari dina yakku mu ñu fekk bi yakku bu yag neena moko defara lolo lako la ko laaj abdu ci Maodo si fukki at lam rek la abdu dox ko ni ko lima def lima sa bay defalon la lay defal ci kër gi non la koku nak mo yar Serigne Pape malik ci loolu mu jël ko top ko ba bi Serigne Cheikh nelawé ñu bari sax sen xol fess na ndax aduna bu Serigne Cheikh lam waxon rek aduna bu gar ci mais ñu bare bi ñu gisee Pape Malick la seen xel xaw a dal ndax dañ koy gisee Serigne Cheikh moo tax ma wax ni bi Serigne Pape Malick demee la Serigne Cheikh doo ko demee. waaw xam nga ñoom ñaar euh, du ma nii diggante mag ak rakk la parce que boobu dafa teer dafa terre mais diggante kilifa ak taalibeem la parce que sëñ Pape yàlla daf ko dimbale mu xàmmee rek euh, sëñ Babacar orienté ko ci Serigne Cheikh donc Serigne Cheikh. moo doon lépp pap Pape Malick ndaxte jële nañ ci moom sëñ Pape mu ni sëñ Babacar bi muy jox doomam yëpp werd moom daf ne yow duma la jox werd sëriñ Cheikh moo lay jox werd te effectivement nee na keroog bi sëriñ Babacar génnee aduna, ba am juróom-ñetti fan ci biir suuf nee na la ko sëriñ Cheikh woo mu ñëw fekk ko ci néegam ci suuf mu ne ko dama bëgg tàllalal pour ma jox la tarixa bi nee na sëñ babit ni ko dama bëggoon nga may ma ma wut ci seede mu ne ko koo ci wut sedde mu ni ko sama yaay soxna Astu de moo soxna Astu ñu ñëw toog Serigne Cheikh jox ko tarixa bi ci bis boobu tamit la ko defal lépp lu nit di am ci tarixa bi mu defal ko ko jox ko ci ndigal mais nag mu tegal ko ci lu am solo ni ko waaye nag yii yëpp am nga ko waaye bu la jaral fanaan ci der ngir soxla ni ko am lu la jaaxal rek ko góor et li may wax que ni sëñ Pape soo ko pratiqué wul doo mën a xam euh, moom tamit euh, bi mu amoon parce que moo tax question wu magam la muy wala je dis la parce que ko comme c'est pas pour rien que souvent ngay dégg su toogee ak njabootu Serigne Cheikh wala ñom dañ nan moy taw Serigne Cheikh parce que effectivement moy taw aussi donc nag Serigne Cheikh jël ko ouf ko tek ko ci wétam jangal ko yar ko orienté ko ba daanaka soo ko comme ni nga euh c'était un produit fini de Serigne Cheikh ndax neena len leen deg waxtanam bo xamni su commencé du Serigne Cheikh lay commencé mom lay terminé dem na ci ba moment euh, ma ngi ni université su commencé dañuy jël ak di euh, nombre de fois yi ma cité Serigne Cheikh parce que suis référence am guide je maître donc orienter ci lui qui m'a élevé, lui qui m'a corrigé c'est lui qui m'a enseigné, c'est lui qui m'a cultivé et c'est lui qui a fait de moi un homme au sens large du mot. Seigneur, Pape soo tout tuuti li ko lié woon ak Serigne Cheikh nga xam ni bi Serigne Cheikh demee ci lay soog a ñàkk Babacar si mais tant que Serigne Cheikh a ngi fa woon ngi fi woon rek moom pour moom seigneur Babacar jógewu fi mais aussi am ci benn mbir mu doy waar boo xam ni moom sëñ Pape daf ma wax. muy jamono gàmmu Tiwaawan ñu dem nii mu dem ziyaare soxna Aminta bi ne gi des na ñaari fan ñett bi ni ñibbisi ba ba jub zawiya sëñ Babacar ak nit ñaa ngi bëri après mu ni mu ni mu ni ah man su nit ñi dee wax ni Serigne Cheikh dafa dafa dafa dafa faatu daf may reeloo ñu ñëpp ñu tekk di ko déglu mu ne en fait parce que faatuwul

waaw tabarakallahu vraiment vraiment vraiment bu ñu la nàmpalul ci la vie mystique bu ca jéem a dugg xam nga loolu ki nga dund ak loolu pendant plus de quarante ans plus de cinquante ans ngeen nekk ci loolu nga xëy yàlla di ko ki mbiram ah euh, même su fekkente ni xëy na ci wàllu euh, euh, baatin la ngeen di jëflante yéen a koy jëflante waaye nag ci wàllu zahir dina la dina la dina la dina la manqué mais terewul it mu xam ni fi mu toll nag ah responsabilité lu mu nekkoon benn ya responsabilité ba yokku na waaw donte la Serigne Abdou ngi fi woon mais aussi Serigne Abdou digganteem ak Serigne Cheikh soriantowul six mois ñu dem donc mu nekk fi nag wax dëgg yàlla. am taxawaay bu mat sëkk waaye kilifaam yoy lépp lu mu doon def rek lu mu ci yokul wañi wuko waaw lu mu ci yokul wañi wuko ndax am na ci bari xamna ko quand même parce que dunduna ko ak mom lim wara taxaw mu taxaw ko lim wara def mu def ko ci walu keur gi ci walu hadara bi ci walu njabot gi ma sha allah ba lima wax ni nit ñëpp dañu demone bani alhamdullilah rabbil alamin ndax ci ben laps de temps bu gàtt digënté mars ak septembre nga ñak ci ñaar ñu day ni Serigne Cheikh ak Serigne Abdou euh mais dina indi jaxlé jaxlé ci euh xolu nit ñi ci bop talibé yi mais fa tabarakallah ak taxawaayam ak farlom ak yitém dem nañu ba xelu talibé yëpp dalon ñu ni alhamdulilahi rabbil alamin malgré li amna wayé xam nañ que ni amna ko taxaw suñu kanam pour la mag ñi bëggona def mëbët ba mu mën len ko yeggaleel mais nag su yàlla dikk ay mbiram aussi euh, kenn mënu ci dara donc yàlla dikk naa ak ay mbiram dañ koy nangu mais daal taxawaay bi mu waroon a am ci ginnaaw bi ay kilifaam fa tabaarakallaahu matal na ko ba dara manqué wu ci. Serigne Abdou ci boppam daf ma wax ni ma Serigne Cheikh kër gi mënu koo fay ndax la mu waxoon ni. rus naa dem ci mag ñi di leen wax ni bàyyi naa conflit ca kër ga na mu ko bëggee woon yàlla maye na ko ko noonu te moo di tey fa tabaarakallahu kenn ku ne wóolu nga sa moroom ci façon boo xam ni la ngay xalaat moom ngay fekk ci moom fa tabaarakallaahu yàlla na sax mu ni ma waaye nag nii nga xam ni moom lañ ma tànnee woon gannaaw sëriñ Cheikh yéen ngeen jàppale ma noonu dey lañu tànne Serigne Babacar Sy mu nekk xalifa mu ne ma yéen a koy jàppale nag wax ma lam ma ca ñaan lépp ak lim ma ñaan ci kër gi ma ni ko insha allahu dinaa ko def ku ci ànd ak man dana ko def ni nga ko bëgge fa tabaarakallahu moom tey wax waxuma moom Serigne Babacar Sy Mansour mi ñu topp ci gannaawam mu nekk xalifa waaye keneen ku mu joxoñoon ni nañu topp ca gannaaw kooka mu nekk xalifa ñu topp ca gannaaw kooka cër bi fa tabaarakallaahu tey moo ko moom loolu la yàlla dogal ñu ngi lay jox suñu loxo di jaayanteeg yow di la nangul sa di la wax ni daanu la jàppale ci biir ak ci biti ci sa barkey wayjur sa barke turandoo sa barke maam ak yéen bi incha allahu du metti du diis ila yowmil qiyamati ndax sa turandoo dafa waxoon ni yàlla bu la yenee yen ba du diis ndax du tegu ci sa bopp dafay ñëw ba tiim sa bopp mu téyal la ko tabaarakallahu loolu moo am kon nag sëriñ bi yëf yaa ngoog incha allahu taala yàlla dana la ci jàppale barke mag ñi sa barke turandoo ci biir ak ci biti kon nag suñu loxo ngoog jàngal nu fatiha kay famille famille bi yëpp ñi ngi jaayanteeg yow ñëpp a ngi jaayante mbooloom yëpp a ngi jaayanteeg yow ñi mën a ñëw ak ñi mënul ñëw di ko wax ni ko si جرجف لا فض فوك ولا شلت يداك كان لا يل سم ياكسرك جوجو ندندل مودي سيد الحاج مالك فتبارك الله ني دي لين فاتلي رك سيد الحاج مالك ني آه Dernier fils du Khalif sur terre, Serigne Pape Malixi, a été désigné porte-parole du Khalif général des Tijan, Serigne Babakarsi Mansour, en 2017, suite au rappel à Dieu de Serigne Abdul Azizi Alamine. Éduqué à la bonne école, aimable, brillant intellectuel, maîtrisant parfaitement les principes islamiques et les sciences religieuses, Serigne Pape Malik avait aussi l'aptitude de cerner l'évolution et les réalités de la société sénégalaise. li ma gën a marqué ci moom mooy ñetti don yoo xam pas gis naa d'abord juddu bi kuy sa papa ñu ni Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu kuy sa radiallahu taala anha lolu, nekna na benn don bu jeuk ñaarel ba pam mari ci ko gis sop ko ce que j'appelle la beauté corporelle mais aussi intérieure bu ko gisee rek da koy sop bëgg ko kooku marqué na ma ci troisièmement culture pam mari Sy kenn ni gis naa ko mu dal école français dem dugg ci école di toog ci bang di jàng waaye bu ngeen làkkee tubaab moo la ko a dégg fuuf di ci def sax ay tournir yoo xam ne sax da ngay da ngay yéemu ci ni kii fan la jàngee lii loolu lu ma marqué ci Serigne Pape Malick Sida ñaareel ba ñetteel ba la ñeenteel ba mooy élégance Pape Malick si mosoo ko gis mukk mu froissé toujours bien bien habillé ci biir ak ci biti am tegingi, Hamet xamit dougante muy nitni. ak te ku ci nekk buy jëfalanteeg yow la ciy sa cër dara du ci manqué ci biir ak ci biti loolu daal marqué na ma ci sëriñ ak nak éloquence bi machallah. allah malik, Malick mën na pendant deux heures trois heures di waxtaan ci ay thèmes yoo xam mais ku nekk dafay ni xam parce que te it bi musul metti ba am ci es ba mu feeñ ci moom maanaam stress musul dal rek noonu la koy recevoir mu amoon philosophie boobu ba tax na boo ko da nga naa kii amul souci pourtant c'est un homme mortel c'est un homme comme tout le monde mais yàlla may ko nag euh, dëgër laay goo xam ne boo ko gisee rek doo bëgg lu dul roy roy ci moom ko waaw yu di nekk ci moom. Eh, booba sax njàngum kooku laa daan njàng xëyril maxluubi alim wala laaliina waaye moom moo ma defaral sama làmmeñ nag ndax comme moom ku man prononciation arabe la maxaarijul xuruf sëriñ Cheikh moo ko jàngal moo ma defaral sama làmmeñ yal na ko yàlla fay. dëkkal ko ci àjjana ya gën a dimension intellectuelle am nag moom Pape dafa dafa juddu rek yeewu moom daal bu ñu wax ni dañ ko sol manees naa wax loolu fa tabaarakallaahu ndaxte e, intelligence am ëppoon nay atam surtout ci français français moom nim ci teel a mel moom dafa mel dañ koo ko sol bu dee arabe itam bind buñ ko bindan moo ki moroomam moo jëkk a mokkal moom sax day mokkal ba pare di dessiner ay maréchal petin ak ñooyu ak wut ay roplaan ak yooyu ma ni leen ku ko ci topp di nga tardé ndax moom mokkal na bindam bu yàgg moo tax nun daawuñu ko toppandoo de dañ daan jàng ba sunu puut yi bëgg a dagg ndax moom boo ko toppee dina dina timbi yow nga diig ca biir ndax yàllaa ko defal loolu teel a mën a bind teel euh, euh, am xam-xam teel a yeewu waaye nag kenn la defoon muy modèle muy Serigne Cheikh moom xamul woon ni ñoo bokk ndey ak baay moom daal sëriñam la ko jàppe woon kilifaam la ko jàppe woon euh, sëriñ Pape li tax sa xam-xamam ak li mu amoon ci ci ci wàllu may du feeñ wala feeñul mooy ay magé mi ñoko mourul ndax dafa toppoon sen gannaaw ba sen takkandeer don dan ko làq ba taxna na buggul woon àddina ci dara bugul won dara li neewon rek moy nek ci roxam top ndigalu magam yoyu te comme biñu faato ak bi fi jógee yagul motax sénégalais yu bari xamuñu xam xam mais ñu ñu daan jon jonte ak mom dafa ne nit ko xamanteni dafa cultiver amone xam-xam parce que Serigne Cheikh ko jangal xam-xam bobu mu am nag aussi téwul daf ko fi bàyyi tukki malik a voyagé dafa tukki def na guiné lu man ñetti at ci palais ségu Touré la dëkkoon néna na sax daanaa nek seul sénégalais bo xam dama nan siège conseil des ministres bu guiné yenn saa yi ségu Touré wax pare ne ko toi sénégalais là tu penses quoi tu penses quoi de ce qu'on dit nee ma joxé sama point de vue en tant que sénégalais parce que amuñu droit wax ma lenn man damay wax sama liberté def na lolu jóge na fa dem na Gabon dem na Côte d'Ivoire tukki na dem na Europe. te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ni ki toog fii jàng ba jeexal téere yi ki tukki ñëw moo ko bu xam-xam kon jàng na ci téere yi tukki na waaye nag dafa incarné la naar ba waxoon boroom xam-xamu arab ba ni laysa fil kutubi wal xaraatisi ilmun innama al ilmu fi suduri rijaali xam-xam newul ci bibliothèque newul ci téere newul ci bibliothèque mu ngi ci dënnu nitu yàlla yi te moom fa la daan tibbee ba paré nekkon mystique ya, ba maanaam dafa bëggoon jaamu yalla ci luñu bari xamul te nak warul jaaxal ben doomu adama doomu baba gën bëgg jaamu yalla mu nekkon ko xamanteni ni dafa bopam dawul wax lu ñaaw ko def ben jour né nako mais serigne yow lu tax do magat mu ni ma parce que xawma sama non man xaw sama non

أتكلم عن ميتون بسيب جابي أتكلم أسيد محمد منشود أتكلم أشخاص محمد تجابي أتكلم أسيد عبد الله علامي أتكلم أسيد أبو بكر ابن علي منشود أك سيد أحمد سي أم ما نقرأ بقى بيا نتوس يب أم دي تاريخ شخص أحمد تجابي فوق جل يبنك أم ما يبقى صبون وهم سيد الشخص الحاج مالك وهم دوم سيد أبو بكر waaye yar ya teggin ya xam-xam ya lamiñ woowa la ma Seydi Maxtaar Mbàkke waxoon ne ma sa lamiñ bi kenn mosu ci loolu tey ma si gis waaye lamiñ Pape Malick si kenn mosu ci loolu lu baax rek la xam lu baax rek la daan wax lu baax rek la def ndax Pape Malick julli yëpp ko soppoon su ma saa am dem nay sànni dëkk ba xam ni <laughs> fa la maam jaare bu su tëdd Poroxaan ba nekk ci wetu sang ba Seydi Moustapha Bachir da ngay wax ni ah kii kat Seydi Moustapha yi léppam bu toogee rek ci sëñ Muntaxa mu ne kii rek sëñ Muntaxa ba xaritam ba ñëpp ñu fàttaliku jumaa ju mag ji keroog ba sëñ Muntaxa di ubbi si comme maa ngi toog ba mu toog ci wetam mission bu ne magam ju baax ja Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si almaktoum ñoom dëkk ko mission bu ne baayam Sidi Aboubacar daana ko wax ni kay xool sa baay yi kii mooy sa baay dàngam kii mooy sa baay dàngam loolu tax mu mu gaaw a xàmmee loolu. waa xam nga moom yàlla dafa dogal. Euh, su ci wàllu këru diiné yi surtout man bima ci gëna a moy euh digganteem ak wa Touba surtout euh, actuel khalifa bi di Seigne Muntaxa Cheikh Moustapha Bachir dafa bari lu mu dox lu ñëpp ci ay bokk bi ma dëkkee Baobab euh, ma toog bés ñu ne ma sëñ Moustapha Bachir ne nga wuy si ko Colobane ma jóg jaaruma sax ci sëñ Cheikh pour wax ko ko parce que xam naa ni farata la may doy ma dem ñu toog ci salle bi tuuti mu ni ma agsi ci néeg bi ma agsi ci néeg bi mu woo sëñ Mountakha sëñ Muntaxa ñëw mu ni ko tàllal sa loxo mu tàllal loxoom mu ni ma jëlal sa loxo nga teg ko ci loxo sëñ Muntaxa ngeen fasante kóllëre mu ni ma ndax fi nga féete sëñ Cheikh la ma féete waaw tabaarakallaahu <laughs> loolu maag sëñ Muntaxa ñu seq ko te sëñ Moustapha Bachir moo ko moo ubbi yoon wa ah yàlla dogal Eh, poroxaan ñëw màggalu poroxaan ba délégation gouvernement bi ñëwee itam ànd ak gouverneuru Kaolack bi keroog dafa wax ni tey waxtaan bi dafa am boroom te Pape Malick mi moo ko moom man duma leen tontu bu ngeen waxee ba noppi moom moo leen di tontu noonu la ko doxale Serigne Moustapha Bachir ni nga daan def def nga ko bu ma dikkee danga ma naan kenn du tontu délégation gouvernement bi yaa leen di tontu ah wax nga ma itam ni ma recommandation bu président Abdou Diouf joxe woon wax nga ma biig ni ma rafetal nañu ko kon nag wax dëgg yàlla dañu koy sant ci sa tur ak sunu turu bopp ak turu Serigne Cheikh mi nu fi yebal si waaw ndax loolu rekk lañu am maam yi nu am ku leen yëg rek ñoo ki yow nii waaw ndax ñoom rek la nu am. mais gis nga waxam boobu bi bi nu waree inauguré Masalikul Jinaan sëñ Muntaxa ñëw fii sëñ Pam ni ma damay dem ziyaare ko bi nu ñëwee ba toog ma ne gis nga nitu yàlla. lamu leen boole woon ni leen yéenay bokk jamono effectivement jamono ñëw na indi ko ñu bokk jamono war a doxal. donc euh, à chaque fois que Serigne Cheikh chère dans euh, ci màggalu Poroxaan nga xam ni que Moustapha dafa amoon relation particulière avec njabootu Seydil Hadji Malick rawatina ci que Serigne Cheikh Serigne Pape Mo Dan dem ci ci gi ba ben at at bi ni defalee euh, mausolée Bousso ba war ko inauguré mu tombé magal gi mais kéro ñëwé Moustapha ko kenn du ko inauguré yow dem inauguré ko ndax sa la donc mu amoon ak ñoom ay relation yu yu yu yu particulière ñoom Serigne euh, euh, Modou Makhtar Mbake, bi fi jóge yàggul yal na yàlla yeeseen yërmandem ci moom ñoom sëñ Modou Kara mi ñoom même sëñ Bass Abdou Khadir mi c'est-à-dire que ni ñoom ñëpp wax dëgg yàlla amoon naak ñoom ay relation yoo xam ni eh, ngir xamni ño bokku lepp ndax tamit te loolu li ci xital moy Serigne Cheikh aussi limay wax toujours parce que Serigne Cheikh moko daan yabal ci ñom diko yoni mission muy dem Touba di set imam Abdou Lahad di dem Touba di set imam euh, Falilou Mbacké ca jamono netali nañu nee na euh, bis dafa ñew Touba seet si maam Fallou nee na ba guddi jot nee mu ñew ni ko ah man day gol gi dama dama bëggoon a ñibbi nee na sëñ Fall ni ko ah foo mu ni ko ah nee mu ni teg nee eh, na ma def ni fi moy sa nga naan da ngay ñibi togal et de la même euh, façon aussi noonu la amoon relation ak euh, sunu mbokk chrétiens yi ndax gis ngeen bu yàggul lekk avant muy génn àdduna benn mees bu amoon benn xaritam bu ñu doon defal mees bu génneen àdduna chrétien mais mu sol dàllam dem ba ca église ba fekk mees bi te gis nga yàlla dogal mais jamono bi mu génnee àdduna man ci sama bopp toog nañu ca kër ga ay mbokki chrétien ñëw ni dañu amone yéene su affaire Covid bi wàccee ñom ñu def mees ngir mom gi ñaanal ko yalla tellement que dafa won euh, relation bobu entre chrétien ak musulman dama dem ci benn séminaire yagul ma ni euh, dialogue islamo-chrétien bi ni wax ma ni yeen da ngeen koy théoriser ma leen mais seigne Pamaay daf ko dund daf ko dund parce que lo xamni ñepp gis nañ ko te fi dem na fi ci ci église euh, fi euh, cathédrale bi ñuy defal mees euh, Yacine tiando mais kéro bi mu yegsee kilifa diiné yi fa ñëwoon ñëpp dañu taxaw ci biti waye bi mu ñëwé nuyu len mom jubal dem dugg ci biir église bi ci la ñëpp dem toppi ko xam ni parce que bon yonent bi jàng leen ci lu bari digganteem ak chrétien yi ci ci ci jamonoom donc mon aussi même si même siège. le ci il a tellement d'amis chrétiens mais pour wane mais nga am ci xarit ñu am ci mais yàqul ci pas dara donc relation boobu daf ko et puis sans compter maintenant ci côté Layeen Lay. vraiment ay na ma téléphone euh, presque de 10 h jusqu'à 4 h du matin di waxtaan téléphone tellement que de nous de nous amone affinité de nous amone euh, ben complicité bu nekkoon sen diggante donc vraiment bon su dee ci wàllu kunta kunta yi kooku n'en parlons pas parce que euh, euh, so jëlee ñu melni ñom Haj Hadj Bachir Kunta ñoom euh, Lamine ndeysaan suñu mam joju nekkoon ci Tiwaawan te faatu mais ñom ñëpp ku ci nekk seq naa ak ñoom ay relation yo xamni tay euh, soko ko nit ñi sax dañuy dañuy waaru mais lolu pour xamni quand même mission am du won rek la amna fuma bok islam la islam nga am ak ñi donc ci tarixa cheikh laa bokk tamit nga am donc lolu la ci ci ci ci dundam ba euh, vraiment un en exemple pour que dialogue bobu dialogue interconfrérique euh, dialogue islamo-chrétien mais ne taxaway bi mu ci def ak djégo yi mu ci def mais mënoon na servir d'exemple euh, tay jii ci ñi nga xamni ñoy ñoy prôner ce genre de dialogue là. Serigne Pape Malixi a vécu modestement père de famille exemplaire il se maria avec Sorna Mambas, issue de la grande royale Adja Mam Yassin Diagne cette union donnant naissance

moom rahmatullahi alayhi gaañu na bu yàggul mëntoo Jaxate ñoo ànd keroog ba ñuy ñibbisi jóge Gore fekk maam Yaasin Jaañ moo jur baayu maam maam baas mii di soxna sëñ sëñ Pape Malick si maam ma maam Yaasin Jaañ di taalibe sëñ Babacar boo xam ne bii te nag dafa doonoon nitu dakaar doon lébu am cosaan am fii suuf ak léegi xam nga këram nga fa mu nekk te boo nekk ca zawiya Sidi Hadj Malick foofu xam nga jàmbur du fa dëkk foofee la la dëkk fekk nag bi maam Yaasin nag mu wax Pape Malick di ko tooñ ni ko sama sët bi de yow ko fi bàyyil maam baas ba ba ba nay dem nag soxna Asu ni ko ah sa sa sa jabar ja nanga fa jaar de boo boo wàññeekoo na ngeen fa jaar nga nuyu maamam nuyu waale ko ban jógee gore nag ñu jaar foofa nag teroog laa jikk a gis maam Yacine Diagne te laa jëkk a gis maam Baas fa la nu añee keroog waaye lii moo ci xew yàlla dogal itam maam yaasin jaañ bu doon euh, buñ doon jox mu xadd euh, sa jigéen ci tariqa bi dee ñu ko jox ndax taxawaayam waaye maam ba sax ndeyi daara rek laa koy wax waaye moom mën na ndey daara mën na nekk xalifa maam siin Diagne wax dëgg yàlla ndax na maam Yacine Diagne taxawoon ci wetu sëñ Babacar nekk ko ci wetu sëñ Cheikh moom itam noonu la mel ah ñu ñaari doomam Safiyatu ak Fatimatu ñu ngi di leen gën a yëgal daal ñu ngi leen di gën a massaw ci yéen way jur di ko gën a fàttali di gën a fecc feddali kóllëre gi bi ñu ma waree may soxna amul teraanga bu ñu yóbbuwul fii ci kër gi teraanga buñ fi indi ñu delloo ko waaw wax ni faatiha rek lañu soxla waaw soxla waaw ma jël soxna sëñ Cheikh digal ma waaye lëm ma digal sëy bu may maye danaa leen ko digal waaw dañ ma may soxna ci timis sëriñ Abdou ko ñaan si al ma fekk sëriñ bi ca route de ma ne ko loo may digal ci soxna siñ ma may léegi mu noppi lu yàgg ni ma nga protége sa soxna mu ne ma doomu jàmbur ku ko jël danga koy protége mu ne ma bi ci des mooy buleen leen nangu ñu envahir seen intimité mu ma bu ngeen bàyyee ñu envahir seen intimité dingeen dem ba bëgg dégloon te dootu leen ku mën ndax ñi ko envahir mu ne ma bu leen am intermédiaire mu ni ma jàng nga li yonent bi wax ni néegu sëy ñaari lal ñoo fa dagan bu jëkkër ak bu jabar beneen lal bu leen bëgg a ñetteel jàppal ni lalu seytaane la mu ni ma bi ko ñeenteel bu leen am habitude mukk di waxtaane détail parce que détail dafa yomb boo ko miinee wax farata jafe la mu ma bi ko juróomeel moy li yalla dogal ci yonenti dogal ko ci awliya wi moy bu teye nga am dépense boo lëgee doo ko am waaw non la yalla terele terele aduna bi mu ni yi dal man mom la lay denk Au-delà du guide religieux charismatique et raffiné qu'il était, Serigne Pape Malixi savait aussi faire de la politique. Il est aussi un patriote incontestable qui a payé de sa liberté plusieurs fois pour la défense des intérêts du peuple sénégalais. Pape Malick Sy dafa traversé ay ay cycle politique yu Bari. parce que ànd ak magam di kilifaam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum Jambaro ak Senghor ba li nga xam moko dal ci prison ci Serigne Cheikh Tidiane si la ñëkke la ñëkke. man suma sëriñ parce que talibé Tidiane la ñu bokk dëkk jolof mais maa ngi am ak moom dëgg-dëgg jëflante ci atum 1994 boobu fekk mu ànd ak kii di Ablaye Wade di ko jàppale ci wàllu politique moom ak yeneen kilifa diine ba yàlla suñ borom dogal Qui xew-xew yoy ñu 16 février 1994 ñu boole ñu dugal ñu japp ñu dugal ñu prison bobu Abdou Diouf moo fi nekk bi ñuy ñu dugal prison nag prison boobu dafa xawa doy war ndax té biñuy ñew ñun fekk nañ fa Serigne Moustapha Sy personne morale Moustarchidina wal Moustarchidaty fekk moom mu jafle woon woon Abdou Diouf aussi 1993 fekk ci la maître Babacar mu vice président conseil constitutionnel ñuy jàppoon ci Abdoulaye ko mais téye fa ñu bëri ay Samuel Sarr ay ñoom Pape événement 16 février

Qui boole len ci fitna ci dir bu tol amna lo dang ne ko xam ci mom amna lo war ci lu la alors bu ma don teunk Malick si ci politique damay wax ne day ko da don tari ak di jëf li mu jàng ci Serigne Cheikh na Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ci gëm sa réew bëgg sa réew bëgg liberté bëgg démocratie parce que moom léppam même ci politique dafay tënku ci Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum euh, bañ fa nekkee mu nekk fa ak njàmbaar goo xam ne gi man ci sama bopp sax daf ma daf ma xaw a waar mais surtout euh, yegul won bopam ne mom mi ngi ci kasso ay fatali ay abi rek la mo dan wax nag ben bes ñu teud wo yeewalu wax abi am nga nelaw ma ko bi fi mom nuñ fi nelawé <laughs> mu ne ma dara rek la lay yëgal de Abiballah Balakam mu ne bu fekkee dañ la toqantal ci naasil xaq bilaq ma ne ko waaw mu ne nampal la ci siraatikal mustaqim ma ne ko waaw mu ne boote la noorul mu talzam ma ne ko waaw mu ne buñ la gëddee fii nga tiir rek mag ñëpp mere la ma ne ko dégg naa sëñ bi li nga wax ca jamono jooju lañu xaw a laal daara maag moom suñu néeg ba moo ma jàngal jawaratul kamaal li mu wax may tontu may may may répété allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati mutaaxifati aytati bi markazil fuhumi wal maani ba mu jeex te comme ku bëri woon euh, il avait de l'humour mu ne ma ah, mokkal nga de waaye ay mbag ñu baree ngi fii di kaalawu te mokkaluñ ko ma ne ko jërëjëf si. waa xam nga euh, sëñ Pape euh, euh, xam nag yàlla def ko baaxee bi mu gënee nekk ndaw il a beaucoup mu dem fi surtout en Guinée te Guinée yàgg na fa lool. mais li nit ñi xamul moy gis nga dafa amone ak Sékou euh, Touré ay relation yo xamni ni Pape demone na ba di siéger ci comité central de parti Sékou Touré bi dem na ba Sékou Touré suko d'ewo camarade malik Sy rek la koy woy comme ñom ni daan wonte ci sen bir parce que bon il avait des idées révolutionnaires donc tant yo Sékou Touré fi nek avec euh, période indépendance révolutionnaire bon Bug Afrique Bug réewam donc Seigne Pape avait beaucoup de de de de de pour pour moom mais donc mu nekk Guinée et il m'a raconté un jour mu ni ci seen réunion yi naan def ci comité central et dafa am benn jour rek Sékou euh, euh, Touré demandé ko pour mu def un article quoi sur la révolution ak yooyu ah nee na dem article ba non mais bi def article bi nee il a fait référence à la négritude nee na ko defee une noppi le texte bi Cheikh Touré nee ñu gis prochaine réunion bi ñu ñëwee fi ñu mu gis euh, texte mais souligné en rouge li mu wax ci affaire négritude nee na paré, que nous ne dama la soxla mu ñëw nee wow j'ai vu ton texte vraiment c'est bien fait ni ko dafa da nga ci aborder thème ni moy affaire négritude parce que bobu rek cheikh Touré ku ne sais pas li ci alors néna ne, seigne ne mu jox ko ay raison am euh, euh, camarade président il faut nga Afrique l'Afrique a besoin euh, de la sagesse Fuyet boigny l'Afrique a besoin de la culture de Senghor l'Afrique a besoin de la bravoure de Sékou Touré ko il faut que yii Afrique dañ ko soxla ñu seet naka lañ ko alors si le Sékou mujj wàcc eh, xam ne li mu ko wax mënu ci teg mu accepté ko donc gis nga engagement am yooyu moo bi mu dellusiwaatee ci réew mi aussi eh, eh, mais il a eu à cheminer ak ñoom Majmoud Diop bokkoon na ci ay parti de gauche hein? toujours des saan daf ma daan tooñ ma.

ba nu jàpp leen ci yóbbu leen prison et tout cela mais c'est-à-dire engagement parce que pour moi, euh, ci moi laa gis c'est-à-dire nit koo xam ni su xasee gëm benn mbir gëm na ko waaw dal, gëmantu daal waaw xamoon na ni que ni li, moo nekkoon loo xam ne daf koy def pas pour moom wala pour sa famille wa dédé, Def ko doon def pour parce que peuple bi ñoo soxla woon loolu donc engagement boobu daf ko gëmoon ci le nem aux côtés Abdoulaye Wade des euh, Landing Sabané mais ñoom ñëpp ànd na ak bataillé dem nañ prison def tout mais pour cause bo xamni pour mom c'était une cause saine une cause vraie mu top ko ba yalla dogal ci loolu mu ci dogal donc gis nga pas-pas euh dama ni euh, très tôt dañ ko yar ci mom tu vois parce que qui euh, connaît Serigne Cheikh parce que <laughs> Serigne Cheikh ne a xam totalement mais ku xam ci di nga xam euh, dina def ci pas-pas xam ni mi ci et so ci xasse dugg jeex mom doon doomu soxna rek wala kilifa diine wante dafa nekkon imaman diini yan wa di bu un patriote bu rew mi soxla di xex day ñew taxaw Andrang ak mom ci xex yu bare bañu ñu ñu duggal ñu ci kaso ma bok ak mom cellule camp pénal ñu nekk ci benn kasso man ak mom ak doomu Serigne Cheikh Abdou ñu gëna ci biir kaso bi di def suñu ay darsu ci biir kaso bi ba bañu ñu génnee bobu sax Serigne Cheikh gën ko suxat gën ko saxal ndax saa su nekk ñuy gis ak mom ñu xamone ci mom ni Serigne Cheikh yëbb ci mom ba mu jeex tak koo xam ni ah li ñuy wax am sœur wax naa démb ni amour fusionnel la woon entre moom ak Serigne Cheikh kenn mënatul woon xàmmee ñaari jëmm yi ndax moom dafa demoon ba Serigne Cheikh yëbb ci moom ba mu jeex tàkk tàkk tàkk bu bu taxawee di wax wala buy dox wala bu solo wala même buy nelaw nga ni Serigne Cheikh moo nekk kon nag ah démb wax ni takk Serigne Cheikh l'ombre de Serigne Cheikh s'en est allé moo fi jógee. Sénégal ñàkk na kilifa diine bu mak, bu am pas-pas mais aussi bu yaatu ubbeeku am li wax ouverture d'esprit mais aussi bu am raffinement ak élégance bo xam ni dana tax nit ñi gën a ñome diine ji gën a fonk diine daawul tiital nit ñi ci diine daan na ko euh, rafetal ko ba nga xamni nit ki dana gën a ñome xiir diineem ñu nekk ci prison bi mu nekk situation yu xaw a doy ba jamono ñu ne il faut que ñu def ay pexe pour vraiment fii parce que euh, kenn kenn euh, jugé wuñu après avoir ci pexeem ne nañ def grève de la faim mais mon ne moom rek mooy def grève de la faim ñun buñ ko laal Landing Savané na ko déedéet Pape Malick na ko déedéet ñun ñëpp ñu ne ko grève de la faim bi ñooy ànd ak yow def ko mais li ci doy waar mooy Pape Malick dafa yorewoon ulcère bu xaw a métti mais li muy yore ulcère yëpp parce que ulcère bëggul xiif njàmbaaram tax na jàmbatu ko ba juróomi fan grève de la yi ñu def daf ko ànd ak ñun def ko lekkul benn yoon maa moom bokkoon nekk te lu nekk mënoon na cee xew ulcère boo xam ne sévère sax nga toog juróomi fan lekkuloo kooku njàmbaar ak gëm sa réew ak gëm démocratie ak gëm kilifam Cheikh na Ahmed Tidiane si Al Maktoum moo taxoon mu di ko def léegi nag dimension politique dëgg dëgg dëgg boobu mooy fi ma ko nattee mooy wutu ca dara seetu ca intérêt wutu ca xaalis wutu ca poste lu tax ndaxte bi prison en 1995 après dañu avons ñun ci gouvernement Abdou Diouf nous avons eu le gouvernement euh, majorité présidentielle élargie Abdoulaye Wade nekk ministre d'État man ma directeur de cabinet pendant ñetti at mu éclipsé wut amul dara lu ñëw wut ba ñu pouvoir 2000 ba def ci fuk at wala fukki at ak benn gisuñu pap Malick si dégguñu pap Malick si sollicité wul ken ma nga tok ci ruxam mom dal mission la don dox ci lu ñu jàpp ci ndigalu kilifam Cheikh Ndambe Tidiane si mooy démocratie am ci réew mi alternance am ci réew mi réussir na ko yàlla dimbanal leen dem na toog jàpp njàmburam ba muy 2011 man laa soog a gisaat sëriñ Pape Malick si mu ñëw ci Ablaye Wade président de la république bi mu ñëwee quelque temps après mu ñëw am audience

mu dem ab diir avant muy dugg ci Ablaye Wade sax président Ablaye Wade maa moom ñu ma sëriñ Cheikh Tidiane si nee na jaru ko xoolal nga xoolal De, dañu yaakaar ne politique boo ci duggee jàppale et cetera ba nit ki àgg pouvoir ku nekk ngay wut loo séddoo moom la des gâteaux

alaaj jóob bu njaasaan yal na ko yàlla yërëm ñëw fekk ma ci kër gi ni ma kaay wuyu sa nijaay Sidi Ali Kunta ma fekk Sidi Ali fii ci kër soxna Mariam Kunta Sidi Ali ni ma dégg c'était mu ne ma dégg naa dangeen ngeen former parti politique muy le PSS ma ni ko waaw mu ni ma ana Serigne Cheikh ma ne ko dafa dem Dakar mu ne ma parti bi ngeen forme am ngeen ci droit parce que ay citoyen ngeen mu ne ma mais maa ngi leen di ñaan bu leen wax kenn lu ñaaw moom Sidi Ali Kunta mu ne ma bu leen saaga kenn nit munuma xam nga ko saaga ndey bu feyoo yaa saagaloo so wayju mais wax lu ñew du avancer rew wa rew yéene bu rafet mo koy avancer wa bu ko euh nañu seet nañu seet ba xam ba xam yalla mi ngi nuy dégg walla déggunu

nee nan bi mu toogee sama woy jur bu góor sëñ Alaaji Cissé nee na laaj ko ni ko ah, góor gi ñun day bëggoon nan nga baaxe ñu liggéeyu taalibe lu muy doon en sëñ Babacar ni teg ba si ak ni ko ah, xam naa day du génn ñaar du génn mbay du génn commerce donc ñoom ci wàllu boobu rek lañ daan yëngatoo ci wàllu mbay ak ci walu commerce mais diko def nak ci anam bu discret boo xamni danaka nit ñi duñu xam sax seen yëngatu ci walu bobu lan la mais ku leen xam xamni e euh, dundé wu non adiya adiya mo leen wona dundal ndax ko xamni lan lay jox da nga ci tek pour dimbali ñi nga am koku yaakaaro ci adiya pour dunde tay kiko yar di seigne Cheikh Ahmed Tidiane Maktoum ku miin param, xam ni liggéey euh, sacerdoce la ko defoon donc toujours daf daan wax ni nit ku nek da nga wara am métier diko ko def métier nak man na nek façon bu nek comme ni mo waxee léegi du caagi ko rek ku demul ci bureau liggéeyuloo wala ku niwul ya mom boutique bi nangam ak nangam ñom mom ci activité am yëpp c'était dans la plus grande discrétion mi ngi won nak ay tolam mi ngi won nak ay activité commerciale am di def ay opération mais aussi très discrètement vraiment kuko kuko xamul minul trop do meuna a xam ci mom yoyu parce que tamit euh, li ni wax kani amna lo na loo xam ni soxlawul nit ñi xam ko l'essentiel moy yow mi koy def na nga xam li ngay def rek donc ci walu bobu daan na ci def ay yëngu-yëngu bari bëri contact ay am homme d'affaires yu bari nit ñi daan ni ñew di waxtaan ak mom ay walu projet mu ci daan duggu mais lu ci def rek. Euh, discrétion bi ko kilifaam yare ci noonu la ci daan demee daawul bëgg daraam siiw daawul bëgg daraam ñu fekk ko ci mbedd mi wala naka sa dul noonu kon fa tabaarakallaahu yëngatu la woon ci la daan def ndax it ñoom euh, ci Seydil Hadji Malick ba ci sëñ Babacar ba ci ñoom ku ci nekk la nga daan dundale sa njaboot mooy li nga daan ñaqal sa bopp waaw loolu moom euh, exemple yu bari mën nañ ko ci joxe ci Maodo ci sëñ Babacar ci ay magam ba ci moom la nit ñi daan am nag di leen ko yéene ngir hadiye ngir barkeeloo ko loolu doo ko bañee sa taalibe ndax mas naa dégg ci moom mu ni saan mas nay waxtaan ak Serigne Cheikh ni ko waaw addiye ndax euh, dagan na ba léegi nee na Serigne ko dagan na waaye li nit ñi am addiye def ci xajatul fi mu toll xam nga kii am dépense su këram matagul kook su ci bëggee génne addiye dafay xaw day war bokk na ci li ma gënoon li ma gënoon a yéem ci moom mooy générosité am sëñ lu mu yor daf ko daan joxe daal dencul woon dara ngir moom wala ñëwoon lu mu yor daf koy joxe ndax man loolu dama ko fekkee à plusieurs reprises donc du woon koo xam ni alal wax naa ko ci biir waxtaan bi daf ko yitteeloon déedéet yitteelu ko woon. itteelul ko lam ci daan liggéey tamit lam ci war a jëfandikoo ci këram daf koy jëfandikoo lam ci war a dimbalee ay njabootam ak mbokkam daf koy def koy daf koy daf koy def ndax la preuve bi fi ay kilifaam jegee di Serigne Cheikh ak Serigne Abdou mais lépp lu daan dox ci biir xadara Serigne Babacar Sy moo ko daan doxal te ci poosam la ko daan doxalee ah xaaru ci woon benn taalibe xaaru ci woon kenn xaaru ci woon état xaaru ci woon kenn waaw ah, lépp moo ko daan def waaw te dara mosul manqué au contraire dafa ñëw sax lan daan def mu yokk ko waaw kon loolu pour wan la ni loolu kese kese mënu ko il faut que nga am benn activité soutenue moo lay mën permettre pour yooyu nga mën ci nga mën ci def face. mu nekkoon koo xam ni dafa njaboote woon ñëpp sëñ Pape Malick dafa dund dund boo xam ni dafa yéeme woon parce que mujj dundam dafa am ñoo xam ne sax dafa def moom ba jaaxal leen ci wàllu njabootam ci connaissance bi mu ci réew ak ñu ko yàlla boole loon mu nekkoon nit yàlla bu effacé woon ku buggoon kër Seydi Hadji Malick buggoon réew mi tamit parce que daan na def loo xam ni ci dundam ci wàllu politik fu mu yëg ci politiciens yi ay xaar ma yàlla daan dox seen diggante yi daan sol dàllam wala kum ci mën a woo mu wala këram loo yëguwul ak sa moroom fexe rek ba diggante yi rek di tax mu nekkoon nitu yàlla boo xam ni euh, ñun ñi sax daf ñu jaaxaloon ci ni mu doon dunde ci mujj dundam téye kër Seydi Hadj Malick téye boo xam ni dafa yéeme woon foo ko natt rek weesu na fa mu nekkoon nag ci keppaaru seen Cheikh suñu baay bu baax ba yal na yàlla yokk leeram nekk ci mission nekk ci mission ba ni sëriñ Cheikh laax ko mu wëlbati ko nekk ko ci magam ji sëñ Abdou Aziz Al Amin ba ci dund sëñ Abdou Aziz Al Amin ba ci feebaram daan xëy suba gu yàlla sàkk di yendu Tiwaawan ba jant soo mu ñibbisi waa Dakar ba keroog bu sëñ Abdou di dog dafa nekk ak ñoom ba yenn heure yi ci guddi gi dafay yegg si rek téléphone am sonné Dans ces deux derniers messages en tant que porte-parole de la communauté tijane, il manifesta son inquiétude face à la propagation rapide du Covid-19. Serigne Pape pas qui s'était exprimé le samedi 14 mars 2020,

waaw bu doomu aadama obéirul ñoom dañuy obéir borom bi du ñu hésité waaw inna al insana li rabbihi lakanudun wa innahu li xubbi xayri la shadid waaw waaw waaye lii nag li taxoon ma wax ni dama cee tiit ma waxoon ni j'ai peur et je suis inquiet li ma tiital moo di du du feebar bi waaw parce que feebar bu nu mënul a faj amul li taxoon nag ma ne Euh, euh, euh, j'ai peur parce que damay ragal nit ñi feebar bi faté lo leen sen borom bu amé rek musiba am événement bu am mom am na capacité jang événement bobulé ba jëli ci ay njëriñ yo xamni euh bo dé esprit simple do gis njëriñ yooyu le

te lol dafa tum rank ci rew mi yaru moy jox joxe sak nit dang koy sagal sa mag nga sagal ko bo bu jume sax nga wodd wax ji nit di def lu naka sudul nonu nga bagn ko weeje bagn ko wér lolou ci fannu yar la wax lo xamanteni kuko deg sa nopp du xajam ci walu yar la te lolou kersa koy lal fa amoon kersa kersa bi motax dawul extravagant

ku dégg adina ku dégg jamono lolou moy lim fi bayyi fexé nit ñi sap tas ciat nekul kessa ci yéré ak ci yaram nit da ngay set ci xel am njort bu rafet sëñ Babacar lañ ko la doon ko lu yées ci adina mu nit sëy ak ku bon dekk ak ku bon ak ñaaw njort ñu ne ko ñett yoy bu ci mu ni ñaaw njort ndax bo ku bon bu ngeen taggo nga am jam, boo dëkkee ku bon bo taxo am jam waye ñaaw njort dekk te ñaaw njort xalaat bu salte rek ko koy indi nañu rafetal xel yi xam nga ki dem ba ne yëguma sama noon xaw ma ne am naa noon mooy kooku rafetal na xelam mais nag dafa dem ba am jeexital ci nitam ba Malick c'était la propriété par excellence ci wàllu cet rek nit ku génn rek rafet moom la woon te allahu jamil yuhibbu jamal dafa nekk moom yàlla rafet ba pare bëgg lu rafet Pape Malick man na moo doon loolu. li ma gën a frappé ci moom mooy. élégance morale am maanaam Serigne Pape ni mou yiwee won, man def ma yéemoon macha allah xam nga damay wax ni euh, gis nga kilifa jafe na nga miin kilifa ci intimité am te gisoo ci mom loko ko mais mom, plus nga koy gën a miin intimement la wax de plus nga koy gën a miin intimement plus mu lay gën a yéem ndax xam nga euh, li may wax souvent que ni xam nga nit ki nekk néegam xam ni sa néeg nga nekk boobu oh, vraiment c'est intimité la mën nga permettre sax certaines choses mais ku yar boppam ba même su nekkee ci biir néegam doo ko ñëw fekk mu am benn comportement bu bu bu bu bu jaarul yoon wala mu

seen i bëtt kilifa yi ñu ngi di tegu ci te bëggu ñu am benn comportement boo xam ni yàlla dina leen ci jéppi seen i kilifa dina ci leen ci jéppi nit dina leen fa fekk jéppi leen donc vraiment loolu yéemoon na ma ci moom ni mu ni mu yiwee woon macha allah et puis mandu mandu man day nekk naag moom ba du ci nii rek parce que sëñ pap moo nu yar bi nu nekkee fii nekk xale yi tuuti di jàng lycée ay loxom la nekkoon laata fay jógee di ñëw Dakar ñun bi ñu juddoo ci ay loxom la nekkoon mais mosuloo fekk muy wax waxi jàmbur jamais de la vie lu ko concerné wul concerné wu mbir dina xew fii àdduna yëpp yëg mais moom su ko concerné wul yoonam nekku ci donc xam nga nit ku mel noonu ci jamono bi ñu dafa su ngeen toogee ak lu waxtaan bi bëri bëri waxtaan bi génnul xam-xam wàllu kër gi wàllu tarixa bi wàllu diina ci mais ay diw nangam ak nangam soo ko commencé wax sax nga gis ci kanamam que ni li intéressé wu ko waaw donc vraiment daal euh, euh, euh, mandu teem ak tamit man dund naa ak moom loo xam ni su doon keneen ak jamono bi ni mu fi mu toll ci possibilité yoo xam ni wàllu xaalis surtout

ba tax na Pape Malick nag te itam conflit bu mu fekkee mën na ko régler loolu la ko yàlla mayoon intelligence am moo ko mayoon ak yaroom ak xàmmeem eh, ba tax na eh, man de ku ku ku ma yéemoon la daal ci doxalinam ak yeewuteem ak générosité nag surtout lu mu yor néeg na koo joxe lekk itam du lekk moom dong faw mu woo waaye day tànn nag ñu mu wóolu ñu bokk di lekk citoyen accompli accompli citoyen accompli mooy nit koo xam ni tama ñaari boor la ci biir société soo ko woowee ci lu moderne mu tase fa ak yow ba wax la ci wan la ci loo gisul loo xamul soo ko indi it ci cosaan mu génne la rafet ca biir cosaan ba jox la ko ba nga mën a nekk ci biir société bi yooyu daal mooy li ma gën a jàpp na bokk na ci li ma gën téye ci Serigne Papa Malick Sy message bi ma leen di lancé mooy Serigne Papa Malick modèle la woon bu jarul ñuy dem tubaab yi di wuti ku ñuy wax Platon wala Socrate wala Macron jarul dem États-Unis jarul dem ci arab yi na ñu yem ci sëriñ Pape mii fexe lim fi joto bàyyi ci li mu fi bi mu fëllee ñu jël koy daf ko njàngat mbubb moom mu fi bàyyi jëm ko sol mooy jàpp doo bàyyi rafetal say jëf ak say wax rafetal njort jël mbaax def ko jikko ndax ku baax wettaliku ku bon wet te sëriñ Pape Malick ku baax la woon ku yaru la woon ku sell la woon ku set la woon yooyu daal buñ ko jëlee defe naa ak li xew ci àdduna bi ak xale yi nga xamante ne dañu manqué repère Pape Malick mën na nekk ci ñoom benn bu sol ba bu ñu réeree bu ñu ko xoolee rek gindi ko. li mu xeex ñëpp tëdd prison ba bañ àggee pouvoir taxul mu laaj dara dafa dem toog jàpp njàmburam kooku modèle la modèle la pour.

ñun ñi nga xam ne ñoo jàng tubaab ñun ñoo ngànk état bi ne leen yéen bokk leen ci xamu leen dara waaye waaye dama leen wax toujours kii organiser Tiwaawan ba mu mel ni mu mel di def gàmm gu mu toll te état mënuta organiser lu mel noonu kii di organiser Touba ak ni mu toll ak ni mu mel te état mënu ko waaw kooku ko dénk réew mi nga yaakaar ne mënu koo yor moo ko dàq yor ñun ñii sax alors donc il faut que ñi euh, xamné ñi responsable politique ñank ñank état bi xam lolu ñu def ay pexé nak ba nga xamné ne ñooñu ñi xam ne am xel ak xalaat bo xamné moy mooy réew mi kanam ñi xol nu ñuy def ba mu ñom ñu mëna doxal bokk euh, ci li doxal réew mi. li ko li ko gënoon a yitteel mooy li fi mag ñi soxaton euh, li fi mag ñi defoon naka ko gën renforcer degeural ko te génnul ñaari mbir nak mooy daayira yi daayira yi quand même sëñ Babacar si moo fi njëkk a créé daayira ci daayatul kiram bi sëñ Hadji li génne àdduna daayira bi pour wàllu pas-pasu njaboot yi ci biir kër gi donc loolu ci li ko yitteeloon pour ñu renforcer ko gën leen dëgëral ci la bokkoon et puis organiser waat leen ndax yàllaa ko dogal mais amoon na yéene def benn tournée nationale Eh, seetiwaat fédération parce que quand même daayira yi bi ñu ba am yenn dimension yi dañ leen organiser en fédération bon Dakar amone na fédération côté Kaolack amone na fédération côté Saint-Louis amone na fédération ainsi de suite donc mu demoon ci yéeneem le woon pour cette nak la leen gën euh, euh organiser waatee gën leen a nit ñi xamni li lii la mo xamni tay tey Babacar si moko fi bayyi te den war nak noonu sëñ Babacar lu mu fi bàyyi loolu dundal ko farata la woon et puis aussi ci wàllu service bi mu gis que ni ay magam di Serigne Cheikh ak Serigne Abdou li ni fi baye won moy walu koskas wa te keur gi tamit ñaar yoy rek ko ko seq tarbiya bi ak walu service bi donc ñaari structure yoy ñoko yor daire yi ak koskaas donc aussi amul projet li ma fekke bok bu nit ñëw di ko wax ci wàllu kër gi te lim lay njëkk a posé mooy affaire su fekkente ni ci service bi la dañ ko delloo ci wàllu koskaas su dee ci leneen leen affaire tarbiya bi dañ ko delloo ci wàllu daayira yi bon donc moom yooyu euh, comme il disait souvent je crois que ni loolu yéen seede ngeen ko bi muy soog toog la première chose bi mu ñëwee dafa ni li fi Serigne Abdou defoon duñ ci changer dara au contraire dañ koy topp benn par benn benn par benn te ku ci nekkit ba ngay dem. am na loo ko santoon muy Serigne Cheikh muy Serigne Abdou te wax na ko dul benn yoon du ñaan nii li ma sant xam naa ko waxuma ko nag waxuma ni ma lii lan ma wax nii pour ma def ko mais li mu daan wax daal ma sant xam naa ko te dinaa ko def donc loolu moom euh, du woon comme je lu mu bëggoon a sos lu bees ndax kër gi luñ fiy sosati amul xanaa da ngay sof maanaam fekk lii li ci nekkoon nga seetloo ci dolli mais liñ fi war a doxal kër gi. dama koy wax toujours xale yi ma ne leen mais ñun am na loo xam ni sunu sunu sunu sonnatee ci ñun la ndax mag ñi li war a doxal kër gi yëpp fii ba yomil aaxir tëral nañ ko ba noppi. man waaye dimbale leen ñaan ngeen ma ba ma wa. maam ñaanal maam ñaanal déedéet déedéet. papa ñaanal papa ñaanal papa ba tey ñaanal papa ñaanal papa ñaanal moom mooy papa mooy maam est-ce que tabaarakallah tabaarakallah tabaarakallah ñëpp am nañu lu diis waaye ñëpp bég nañu yal na yàlla bég ci yéen ila yawmil qiyaamati fa tabaarakallahu بيج نانو لي غور منال مروم غوروم ديفال نين نوكو لي جوليت منال مروم جوليتام ديفال نين نوكو لو ديس سي نيون فخه تبارك الله جزاكم الله عنا خير جزاكم الله عنا خير جزاكم الله عنا خير يالنا يالا تخو لين سام لين تاس seen sen seen martaba son dono ak seen faybu bismillah ba bi mujj ndaysan fiñu ñu gisante dañu dajé bi def levé de corps Serigne Alioune sal bu soxna Sofietu Si bu sid Ahmed Si bu Malik mu ma gis nga dé dafa doy war mu ko waaw ma aduna way la way ta way bala neex am nel daaneelam mooy dee loolu lañ mujj waxtaane bi ñu tegee sëñ Alioune Sall war ko jullee loolu la wax ca mbooloo ma keroog jumaa jàmmalay keroog laa ko mujj gis àdduna way la te way balaa neex am daaneel daaneelam mooy dee alaa yawmuhu yawmu Son rappel à Dieu, le 25 juin 2020, à deux jours de l'anniversaire du rappel à Dieu de son homonyme, Seyd El Hajj Maliksi, revêt une grosse perte pour toute la Houma islamique, en particulier pour la Khadara Tijaniya. والمداوى والذي جلب الدواء وباعه والمشتري waaw ana samalaat malaat nga ni faatu na ana médecin bi ko daan faj nga ni faatu na ana pharmacien bi ko daan jaay garab yiñ koy faje nga ni faatu na ñu ne ana xale biñ daan yónni muy jënd garab yi nga ni faatu na kon yàlla rek a mucc Puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes du paradis auprès de ses bien-aimés. doom sa yaakaar ci sa boroom na ëpp sa yaakaar ci sa baay waaw yaakaaral yàlla lu ëpp loo yaakaar sa baay ni ko ndax sa baay di nga xëy suba ñu tàggee la ko te yàlla kenn du la ko tàggee loolu boo ko teelee waajal lu bari du la bett moom fu sa mission jeex ci ko suuf nga dem ci bàmmeel gisee nit ñi xëccoo ay terrain rek daf may jàpp parce que terrain dëgg-dëgg yi xëccoo woon ko te mooy bàmmeel ragaluma dee dee ñu fàtte ma laa ragal ku ñu fàtte rek dee nga te dinaay faral di wax ni nit ñi àdduna njett na leen ci façon boo xam ni ñaanal néew sax nañu ca meloon melatuñ ko maanaam du mën a wax wax ni ku ñu suul fàtte ko parce que ñi ngay dem ci armeel yi di ziyaare ji et tout waaye itam am na lu ko gën a am solo te mooy li yonent bi wax ni ku tiim bàmmeelam ñaanal ko faatu amul eh, li am mooy ñaar yu àndoon tàqali ko kenn ku ne ñu delloo ko ci cosaanam ruux kaw asamaan la dëkk yaram matière la dañ koy delloo ci suuf ruux dellu ci ko waaye muñ a ngi fi jullit bu am ku mu ñàkk bu xelam demee ci bàmmeelu yonent bi war na ko muñ ndax tabaarakallaahu bàmmeelu yonent bi doy na ci war jullit te yàlla dogal na ci moom li muy dogal ci ñëpp bu doon dafa am ñu muy tànn di ko dogal ci ñoom am ñu muy bàyyi yàlla am tuuma waaye rek lépp ñépp la ci yemale. sëñ Cheikh Tidiane Sy mu ni la mort n'existe pas ma ni ko lool tax mu di ma